Etia eh, macha allah macha allah salaamaaleykum mbokku internetu Dakar people ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk seen tur ak seen sant di leen wax dal leen ak jàmm si seen beneen émission tey nag émission bi moo fii parcelle ñëw seet si ki nga xamante ni si kenn dootu ko naataable fii si Sénégal warati nag si diaspora bi Serigne Moustapha Niass doon ku yàlla baaxal si wàllum xam-xam Serigne Moustapha Niass ñoo ngi lay nuyu. baad auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim subhaanaka allahuma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul xakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina wa nabiyina muhammad ibn abdillahi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man sanna bi sunnatin ila yawmi din mbokki auditeurs yi 228 mbokki auditeurs yi Dakar People yi nga xam ne yéen a ngi suivre émission bu am solo bi à travers le dans le monde entier ñu ngi leen di nuyu nuyub islam muy salaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ci Serigne Moustapha Niass nuyoo bi am na solo lool waaye tamit fay bi am na solo lool Moustapha Niass tey ñu ñëw bëgg a waxtaanee si ponk yu bëree bari maanaam si laaja ak tontu. Serigne Moustapha nga doon ku yàlla baaxal si wàllum xam-xam nga si jàppale ñu bëri. Mm-hmm. si réew mi ak si bitim réew ñu gis si résultat yu parfait Serigne Modou ñu bëggoon xam lan mooy asrar lan nga si mën a indi. waaw baatu asrar fu ngeen ko déggee mooy baat baat bi jamoo la jamoo boo ko déggee mooy loo xam ne dafa nekk pluriel maanaam mufrad mi mooy sirru mooy sirru mooy asrar jamoo bi mooy asrar waaye mufrad mi mooy sirru xam-xamu asrar euh, ànd ak ay xam-xam yoo xam ne xam-xam yu bari la yu yéeme yéeme ci biir xam-xamu asrar am na xam-xam boo xam ne da ciy tudd almu xawaatim mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci mboolem xam-xam xaatim diggante musallas murabaa ba asrata alfu buyut diggante xam-xamu asraar am na lu ñu ciy tuddee almu nujum mooy xam-xamu astronomie am na lu ñu ciy tuddee almul fëlëk am na lu ñu ciy tuddee itam ba tey almul almu muy ay géej yoo xam ne ba tey am na xam-xam boo xam ne suñu mbokki pali ñoo ko gën a muy almul ramli xam-xam yooyu yëpp boo ko tënkee moom la ñuy boole di ko xam-xam al asrar xam-xam yi nag nit koo xam ne tënk ko dajale ko rek mënuñ laa wooyee mukk seexul asrar foo nga dajale xam-xam yi nga xam ne danga koy tënk ñu mënoog laa mën a wooyee seexul asrar lii daal définition la boo xam ne buñ ko indee dana leeral leen ci asrar. yaakaar naa ne Serigne Moustapha Niass loolu tamit leer na lool am na solo waaye ñu bëri dañuy naan lan mooy tabixa nit. waaw tabixa xam nga nit ku nekk yàlla doomu aadama yi mu bind yëpp ci ñeent rek ci lañ tënku soo koy wax ñu ngi koy tënkee natt xamu nit ñi ci ñeent rek lañ tënk mooy naari yu turaabi yu hawaayi yu naari yu mooy safara euh, turaabi yu mooy suuf hawaayi yu mooy ngelaw maa yu mooy ndox yaakaar naa nag nit ñëpp génnuñ di euh, nit ñëpp boo leen classé kenn ku ne euh, case bi da am foo ci jëm moo tax tey bëri na nit koo xam ne bala nga ko nit bala nga koo mën a ñaanal dëgg foo nga xam tabiam mooy kan dañ naan awalu arif arif nafsak njëkk gi xam mooy xamal sa bopp xam sa bopp yaay kan xam sa bopp dara gënu ci maanaam nga xam yow ban tabia nga bokk te jii bëri na ñoo xam ne ñu ngi jug di dem si mbokk sëriñ si liñ leen di ñaanal naam liñ leen di jox alxuraan la baax na waaye dañoo xamul seen tabia nit ki ba mën a ñaanal nga ubbeeku foo nga xam tabiam fekk xamul fekk nit bu la def bu la bu xamul sa tabia mënu laa ñaanal mukk ubbeeku foo mu xam sa tabia si tabia boobu moo muy xam ci diggante naari yoog maa yu wala na wala wala turaab yi ci lay mën a jaaree xam sa sarax xam bunt bi muy mën a jaar pour ñaanal la yàlla loolu daal itam mën nañ ko indi ay leeral ko ba ba tey mu nekk ci diggante tabia nit ki. ci loolu am na solo waaye tamit ñu gis cat nan la ko suñu borom bi indi ba soo xoolee nit ki xam ne cat moo ko toog nan lay manifesté si moom. waaw laata ñu ñëw ci manifesté bi danañu wax dañuy wax ci cat xadis yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak jamono ji bu ñuy xool dee nga xam ne dafa bari lool ci ndaw ñi. ak ci mag ñi yëpp li ci ëpp cat moo leen di rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sama xeet bi boo ko xaajaa ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp cat moo leen yóbbu ci bàmmeer mi ngi wax ne ci xadis ne aksaru man yamuutu min ummati baada qadaa illaahi wa qadrihi bil ayni yonente bi sallallahu alayhi wa ne li ëpp ci sama xeet boo settantal seenu faatu mi ngi jugee ci cat te itam cat yaakaar naa ñun fiñ ko foog fiñ foog biñ ko foog ne noonu la oyofee cat sax gën naa garaaw loolu da ngay xool tey jii ci tey cat yi muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne cat bu jàppee nit ki bu ko bàyyiwul sax mën na koo yëgloo ba ci kaw montagne xaru montagne nag bu ñu koy jël tey ji ala sabilil misaal ci misaal mooy étage dafa ni yéen ngi dégg ay dew yoo xam ne yu yéemale ci réew mi yu ci bëree bëree bëri cat mën na ko causer ndax bu ñu fàtte ne cat maanaam liggéey lii di liggéey nit mooy jug automatiquement dem defi ko mais cat dafa nekk loo xam dafa loo xam ne dafa gaaw ndax tey ji par exemple mën ngaa yor sa oto bu rafet romb nit mu ne oto bi rafet na li ngay romb ci ay nit yëpp ñu naan oto bi rafet na oto boobu mën mënoo wax a wax bu mu génnee du am gàllankoor tey nit mën naa tabax kër gu rafet a rafet a rafet nit ñi fu ñu rombee naan këram gi këram gi këram gi bu ci deful li war dëgg rek dana mujj nekk ci ay gàllankoor cat dafa dafa nekk loo xam ne dafa automatique trop nit tey ji par exemple mën naa nekk yàlla di ko suturaal muy ubbeeku lool nekk ci place di liggéey léppam di dox ñu catu ko cato catu ba mën am dara kon cat yaakaar naa li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek doy na léegi nag cat kum jàpp am na ay manifesté yoo xam ne dafa cat daf koy manifesté woo ci biir nit ki bi ci jiitu mooy xafa xaanun xal bi mooy fit woo xam ne dafa dëkkee tëf tëfi yow nga xam ne lekkoo alalu jàmbur tooñoo kenn waaye foo toll rek sa fit yi dafay tëf tëfi kum dal ku ne waxuñ ne moom la waaye itam mën na nekk na ci mandarga yi nga xam ne mandarga cat la ñaareelu bi ci topp mooy tuur ndox mu bëri nit ki léeg-léeg mu leer la ne yow jabetoo waaye fu ñu toll 24 heures sur 24 yaa ngi euh, jaabante ci wanag yi di tuur ndox loolu màndarga bu bëri moom mandarga mandargay cat la ñetteelu ponk bi mooy géex yu bëri yaakaar nañ ne géex ci dundu doomu aadama la bokk waaye am na ñoo xam ne fu ñu toll da ngay toog ñuy géex ñuy géex di géex lu bëri rek loolu itam mandargay cat la bëbbali yu bëri nit koo xam ne fu mu toll day bëbbali rek nit koo xam ne itam fu mu toll day nelaw fu mu toll rek fu mu toog day nelaw loolu itam mandargay cat la juróom-ñaareel ponk mooy nit ki nga xam ne dafa néewi nelaw lool nga xam ne bu tëddee minuit mën naa am ba 5 heures du doog a loolu itam mandargay cat la juróom-ñetteel bi koy taj mooy nit ki ñi nga xam ne dañuy toog seen bopp yi di métti ñu def scanner euh, naan garab gu nekk mënta sedd loolu itam bokk na ci mandarga yi nga xam ne te mandargay cat la te itam cat bu ñu fàtte ne ñaari cat dafa am dafa am cat loo xam ne dafay bàyyeekoo ci nit am boo xam ne dafay bàyyeekoo ci jinne borom xam-xam yi nee nañ cat bi bàyyeekoo ci jinne mooy shafa boobu garaawaay bi nee nañ yegg na ci maqaama boo xam ne dafa mel ne kuñ sànni épin mooy xeej wala ñu jam la paak góom boobu muy def cat lu bàyyeekoo ci jinne bu dalee nit ki noonu lay def kon tey ñu dégg ci ne feebar yu bëri euh, nit ñu naa taxaw ne mënuñ koo faj feebar yu bëri bokk na ci feebaru cat la ndax booy xool lu demee ne cancer maanaam góom la góom la ñu wax ne moom la kenn mënu koo faj boo buñ jëlee lu mel ne ulcère ci biir la def góom boo xam ne de calmer rek lay lañ koy mën a lañ koy mën a def waaye daanaka pour mu wér du yomb jabet xeeti feebar yu bon yooyu yëpp bu ci cat laxasoo rek da nga dem ci hôpital bu ne waaye duñ ko mën a faj cat nag euh, li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax dagan na nit ki bala mu koo jàpp mu def prévation te lépp ci alxuraan lay nekk dagan na itam bu ko jàppee ba pare mu def prévention mu def mu def solution pour dindi ko ci yaramam te dara du ci génn ci alxuraan ndax buñ fàtte ne saxaa cat buñ yaakaar ne ku bon rek lay jàpp wala ku bon rek mooy jug catu nit mu jàpp ko d'accord ku bon dana jug catu nit mu jàpp ndax nit bu iñaanee gis lum la gis nga yor ko mu rafet mu soxoree la kooku bu lay cat bu lay catu cat li dafay ànd ak kañaan cat li day gaaw day jàpp waaye buñ ñu bàyyi xel ne cat nit mën naa jógee ci làmmiñu nit ko baax dal nit ndax bu ñuy fàttaliku jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na saxaaba bu tuddoon Amir Amir ibnu Rabia Amir Amir ibnu Rabia moom dafa mës a romb ci dex beneen saxaaba bu fay sangu bu tudd Sahlu ibnu Xunayf bi mu rombee Sahlu ibnu Xunayf muy sangu ci dex gi rek mu ne ah saxlu mii da yaramam bi yaramam bi rafet na da yaramam bi comme yaramu jigéen fi mu waxee loolu saxlu fi mu waxee loolu saxlu ibnu xunayfa rek saxlu ibnu xunayfa daal dina jànjang daanu ci biir ndox mi ci biir riwaayaat ñi ne euh, amir ibnu rabia daw dem ci yonente bi ñi ne saxaaba ñoo daw dem ci yonente bi ne ko boo yéexee rek saxlu musiba dana ko daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ne saxlu ibnu ne lu xew ñu ne ko amir ibnu rabia mii la mu ne nii ngeen di def ba faat seenu mbokkum jullit te du ngeen ko tey kon loolu ñu déggee ci ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne cat day rey yonente bi sallallahu alayhi wa ne jàpp leen ko indi ko bi ñu ko indee ñu teg ko mu teg lu mel ne këll euh, lu mel ne këll mu def ndox mu jël ko raxas ci kanam xar kanamu Sahl ibn Hunayf raxas ci ay poqataanam raxas ci loxom mu gis nag digg gannaaw gi moo leer foofu lu leer lu leer nañ ña ngi fay euh, nekk di leer mu jël ko sot li ndox mi sotti ko ci gannaaw ki nga xam ne mooy Sahl ibn Hunayf mu ne mu ne xëfeet jug kon ñu dégg na cat maanaam fi koy nit ñi di tënk rek romb na foofu bari na tey yàqule goo xam ne nit mi ngi koy yàqule cat moo koy indi bari na loo xam ne tey itam euh, nit ay gàllankoor lay nekk cat moo ko indi te cat it ñi ma ci gën a yërëm mooy sama suñu mbokki jigéen ñi ndax ñoom dañoo bëgg aw tagg ak tra travers yi nga xam ne tey dafa xew tey muy ay Snapchat ak Instagram ak yooyu yëpp dañ ci yor seen téléphone di ci wane seen bopp fu ñu toll naan nii laa mel nii laa mel nii laa mel loolu ngay wane ay million ngi nit ñu ngi koy gis ci àdduna bi foo romb fa ne ñu catu la te cat bi ci gën a borom xam-xam yi wax nañ ne mooy cat li nga xam ne moom ngay def sa bopp dañuy nettali ne benn buur bu tuddoon Suleymaan ibnul Abdul Malik buur la woon boole kook nekk xale boole kook am wërsëg boole kook am taar muy génn àddina comme ci bis bi ñu nekk tey muy àjjuma Suleymaan ibnul Abdul Malik dafa ñëw taxaw ci seetu bi daal di taxaw ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ab yonent la Omar de ab Faaruq la Aboubacar de ab Sadiq la waaye man Suleymaan ibnul Abdul Malik mii yàlla may na ma xale bu ndaw yor xaalis yor taar nekk buur bi mu ko waxee bés ba dellusiwaatul mu faatu kon maa ngi laayee biir ñi ñuy déglu nañu moytu cat rawatina itam catu sa bopp cat nag benn solution rek la am nit bu mu ko cat jàpp mukk wala mu ragal cat jug di dem ci ay xàmbak yu kenn xamul déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ay solution yoo xam ne lépp mi ngi ci alxuraan ndax maa faran naa fii kitaab min shay alxuraan bàyyul dara cat kum jàpp mën nga cee jëfandikoo mu daal di lay bàyyi ki nga xam ne itam cat jàpp ko itam mën na cee def prévention itam ba du ko jàpp lii daal attribution comme cat te yonente bi sallallahu alayhi ku ko ragaloon la ndax a bu xëyaan daan na wax ne aouzu bi kalimatillahi tammati min kulli sheytanin wa hamatin wa min kulli aynin laamatin ngir muslu si cat te bu ko jàngaan ba pare daan na wax ne maa ngi koy jàng nii la ko daan sama maam Ibrahim jàng daan jànge ndax dafa ragaloon cat kon ñuy bàyyiloo nit ñi xel bu baax a baax ñuy moytu cat jamono ji nit ñi cat rek moo leen jàpp ku ci fonk euh, sangatu cat ak prévention cat suñ borom sa suñ borom mën na laa dimbale ndax nit ki dana war a nekk mën nekk milliardaire ñu koy catu ñu koy catu ba mu jugee fa nekk millionnaire ñu koy catu ñu koy catu ba mu jugee fa nekk junneneer yaakaar naa nag kon loolu yëpp bala moo dal ci doomu aadama bi yonent bi sallallahu alayhi wa itam leeral la yoo xam ne cat diggante kim jàpp ak bu jàppee ni muy manifesté woo kim jàppagul ak bu ko jàppee nan la koy dindee incha allah bu jokkoo ak ñoom rek yàlla xam ne danañ ko ci dimbale incha allah bu neexee yàlla. macha allah wax bi am na solo loolu Serigne Moustapha Niass ñu gis ni tamit euh, wàllum rab. Uh-huh. ba tax na day jàpp góor jàpp jigéen. Uh-huh. su leen jàppee lan la leen mën a def ak lan la leen mën a yàqal. waaw xam nga rab mooy jinne rab daf ko tuddee jinne wolof indi rab te bu ñuy jàng ci alxuraan sortu jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun mina jinni jinne ñi ngi wax foofu na ñoom euh, alxuraan rek lañ tagal buñ euh, ndax fa xaalu inna sami'na qur'aana ajaban ñi ngi wax ne. ñoom heure bu ñu déggee alxuraan rek dañuy tiit kon jinne nga dégg na solution bi ko mën a dàq muy rab alxuraan rek la rab nag bëri na tey lu mu euh, yàq ci environnement bi ñu nekk bëri na lu mu yàq ci population bi ndax tey bëri na infidélité boo xam ne rab moo ko causé infidélité boo xam ne nit ki ci boppam la koy tàmbalee ndax bu ñu euh, xalaatee te couple mariage yi problème yi muy am maanaam nit ki dana dana takk jabar man xam nga sëriñ si ñooy déglu ñooy dégg soxla bu ne nit ki dina takk jabar nekk ak soxnaam di fanaan ak moom guddeeg bëccëg loolu du ko doy infidélité bi jiitu mooy moom boppam la koy jëkk defal nit dana takk jabar ba pare wan ko gannaaw bu guddi jotee mu jug dem di def masturbation te loolu rab da koy posé rab ni mu koy posé mooy euh, tey jii rab dana la topp dana topp nit ki boo takkee jabar tamit te jugaloo ko taxul mu bala infidélité boobu itam dana ñëw ci ko jigéen ndax it bu ñu fàtte ne rab mën naa jàpp ku jigéen ba moom it mu am jëkkër heure bu ànd ak moom ba pare bu jugee loolu du ko doy day dugg ci toilette yi di masturbé moom it ba jot boppam loolu itam rab daf koy posé rab itam mën naa topp nit ba bu ëmbee mu tuur ko rab itam mën naa topp nit ba daal di koy dofloo dafa nekk yàlla daf ko mooñaaleeg doomu aadama bi doomu adama bi ta dem sans moom waaye itam àndaale dafa am yu baax am yu bon rab daal lenn amul solution boo xam ne mën na ko koo dàq bu dul alquran comme ni ma la ko waxee rek ni jinne waxee na ñoom fa xaalu inaa sami'naa qur'aanan ajaban bu ñu déggee rab rek dañuy daw tey rab barab yoo xam ne da ngay gis-gis dafay taw taw rek tàkk muy ay kër am na ñoo xam ne bañ jëndee seen kër yi ba tey buñ fa dëkkee ña fa dëkk dañuy feebar am na ñoo xam ne rab yi dana def boo ko fekkee fi mu dëkk nga dëkk fa dana def it kër googu ku fa dëkk rek dañuy gis ne euh, euh, dafay teel a gàtt fan buñ ne ñaadam ñaadam rek ñu ne kii génn àdduna rab yi danay def loolu noonu comme ni nga xam ne cat daf koy reyee rab it mën naa jàpp nit ki di ko manipuler di ko manipuler di ko manipuler moom it ba dugal ko ci bàmmeel waaye képp kum jàpp solution bi ci alxuraan rek la nekk am na ay aayaat yoo xam ne itam faj rab rek moo ko tax a jóg am na ay aayaat yoo xam ne dàq seytaane rek moo ko tax a jóg incha allah ku ci kem suñ kem talaay kàttan ak li ñu ci yàlla baaxee bi iznillah incha allah. ayca am na solo yaakaar naa ni leer na si gis-gis waaye aussi tamit leer na si dégg-dégg. Mhm. ñu gis ni Mhm. ñenn yi tamit dañuy tëb rek di génnee sarax mais sarax nan la mën a def si nit. waaw bu jëlee xadis bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa aw kama mooy bi ci jiitu as sadaqa tutfirul balaa wa tutfirul masaib xata sadaqa yatawil umrak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sarax dana dàq euh, as sadaqa tutfirul balaa day dàq balaa balaa nag bu ñu ko tuddee mooy loo xam ne mooy comme ay dee ak yooyu yëpp sarax dana koy dàq nit waroon naa gàtt fan war dundam bi war a nekk ci ñaar fukki at. mu xam tabi'am comme sànq ni ma la ko waxee bi émission bi di commencé na taxamu boobu mu dugg fa xam tabi'am fonk saraxam suñ borom dana guddal fanam mooy ba yonent bi balaa gi mu wax ne da koy dàq as-sadaqa tufiqul masaib musiba mooy maanaam musiba nit koo xam ne dugg ci oto accident wala tey ay musiba rek moo lay dal foo tourné dugg kaso foo tourné digg foo tourné ñu lay ñu lay ñu lay def lu bon ak yooyu yëpp loolu yëpp sarax da koy dàq mooy masaib bi ci mujj te gën a neex mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa sadaqa dem na sax ba ne sarax dafay guddal fan mooy comme ni ma la ko waxee nit ki dundam waroon naa yem ci fanweeri at wala ñeent fukki at mu fonk sarax saxal sarax suñ borom di fekk fanam. Euh, beneen bi ci des it mooy tey nit ki mën naa nekk ci kaw suuf di tooñ di tooñ yàlla di tooñ yàlla ndax it as-sadaqa tufiqu nee nañ sarax dafay dafay dàq merum yàlla ba yàlla mere ko di ko rëbb mu def sarax rek sarax rek euh, suñu borom daal di koy jéggal mboolem bàkkaar boo xam ne defoon na ko sarax nag buñ koy wax. waxuñ ki nga xam ne yàlla denk na ko wërsëg fu mu toll di génn ay benn bekk suukar déedéet yàlla boo koy jox da koy jox li gën comme que moom ba mu jox la da ko daf laa jox li gën li gën mooy yàlla bu ñu jugee di ko jox nañ koy jox li nga xam ne mooy li gën waaye ñu tal la sarax foo toll di génn benn pakati mbiskit ak benn tàngal di ko génn ak yee déedéet sarax da dafa war a nekk loo xam ne nit ki heure bu gëddee poosam génne ko daf ko war a yëg maanaam ni ko yëgee noonu loolu loolu lay suñu borom di nangu itam mu koy jëriñ ñi ngi wax ne di xeetal nit ñi ci nañ fonk sarax ndax euh, sarax dafa am solo lool bari na lu ci yàlla wax ci alxuraan comme ni ma leen ko indilee ci xadis yi nga xam ne yonente bi wax na ko loolu dafa am solo kon maa ngi leen ciy nañ ko fonk bu baax a baax. ci beneen ponk rek. Mhm. ñu ñëw si actualité. Mhm. élection mairie yi nii xam ne léegi ñu jublu si. loolu tamit ana lan nga si mën a wax. waaw en tant que kilifa diine li ñuy njëkk a wax mooy réew mi Sénégal benn bopp la ñun ñoo ko bokk yaakaar naa réew mi ñun ñu fi dëkk yëpp kenn mënta génn dem euh, dëkk beneen réew maanaam suñ bokk yi nga xam ne génn nañ réew mi sax uti rek moo leen yóbbu waaye bu ñu amee li leen gën a dañuy ñibbisiwaat fii investir ko fi réew moo xam ne nag ñëpp ko bokk yaakaar naa jàmm rek lañu fi war a woote muy parti parti opposition nañu xam ne ki ki gagné Sénégal la gañeel euh, ki am ndami Sénégal moo am ndam waaye côté bi ma ci waxee muy sama wàllu domaine muy wàllu asraar am na ci itam comme ñi nga xam nit bu bëggee fi mu nekk mu noot ko maanaam yàlla may ko fa ndam ndax it léeg-léeg nit bu gënee ci ci ci gox ba mu nekk war na ko ko mën a jaral ba ñu yëkkati loolu ñuy wax mais yëkkati ko jox ko ba suñ borom mën ba suñ borom mën ko cee dimbale. am na ci yoonu asaraar nag yoon woo xam ne heure bu ci jaaree suñ borom mën na ko cee defal tawféex ndax li ñuy wax tàggat mooy tàggat nit. mooy tey jii néew bëgg ci nit ki dara wala mu amee la alal bañ laa fay wala euh, yu demee noonu wala nga bëgg ci gox bi nga nekk dara am na lu ñuy tuddee tàggat tàggat bi nag ci xaxaaru lañ koy liggéey ak yadullahi fawqa aydihim 66 fois mu am yoo ko booleel incha allahu taala bii da nga koy sëf ci fu diis beneen bi nga def ko sa poos di ko sikkar bu dee da ngay dagan baate askan wi mën ngaa jaar ci yoon yooy te du am benn violence incha allah ba li ngay suñ borom dana la ko may bu neexee yàlla waaye daal ñu ngi wax ci réew mi nañ ñu ngi leen di ñu ngi leen di bàyyiloo xel ne tout sauf violence ndax réew mi bu ñu ko taalee tamit ñun ñi nga xam ne ñoo seq réew mi rek ñoo fi yàqule. ñu ngi wax itam ba tey di lancé suñu euh, mbokk yi nga xam ne suñuy rakk lañ ñii suñuy mag ñii suñuy xarit ñii suñuy am di jàmm nañu ànd ak tey nañu ànd ak daal. di wax ne daal am nit ki war nga mën a jaar ci yenn ci yenn ponk asaraar yi ba sa ajo faj te doo xeex doo xuloo beneen bi ci desin mooy ci wàllu euh, tàggat googu ni mu amee itam asraar indi na wàllu woo xam ne par exemple wàllu fay coow la ndax it nit fay coow loolu ñu ngi koy liggéey ci kallaa yi ci alxuraan kallaa iza balaxati taraaxi kallaa la in lam yantahi la nafsu kallaa barana ala qulubihim kallaa yi ba mu jeex nit ki ki nga xam ne dafa am problème euh, bëgg coow li fay incha allahu taala buñ ko liggéeyee am ñu koy booleel fay euh, ci xalu safara buy tàkk nga koy liggéey yaakaar naa xali safara buy tàkk képp ko laal mu lakk la waaye itam bu ñu ci sottee ndox képp ko laal dootu la def dara incha allah buñ ko ci liggéey ba def ko mboolem coow li nu mu mënti toll moo xam coow li nu mu mënti toll rek suñu borom dana jaar ci loolu incha allahu taala ci muy yoon bu dagan ñu jaar ci incha allah taala ba suñu borom yewee na loolu ba coow li fay ba kenn dootu ko dégg bi iznillah lii daal mooy waxtaan wi nga xam ne yaakaar naa indiloon nañ leen ko ci tënk ko ci gàttal lool lu ci leer ci yàlla la lu ci lëndam suñu gàtt xam la ak ñàkk fasaa wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu